jërë ngeen jëf ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal. ki fi nekkoon njiitu promotion économie sociale et solidaire di Diégui Diop nag convoqué nañu ko tey jii ci talaata gi nag daal di ne ji moom sax convocation boobee 11h lañ ci bind waaye moom nag 10h ba mu tegee ñetti simili kon dem na wuy ji ginnaaw gi ñu gis ko kon Diégui Diop dem wuy ji yoon di division des investigations criminelles loolee nag mu. mel ni sax nag euh, dafay rek daal di wuyu kon jëm euh, ci tuuma bi nga xam ni rek moom ministre bi teg na ko ci ndoddam di Alioune jonn ginnaaw moom ba mu gisee ni lu toll ci nag juróom fukki million ci suñuy koppar juróom benn fukki million ci suñuy koppar daal di nañu koy jël nag foofe ci biir te xamuñu xaalis bi fu mu dugg euh, tax na ñu ni fanweeri million ci ay koppar yoo xam ni ba tey nii gis nañu tamit ni jël nañu ko te amul lenn lu koy findeel ci mbir mi moo yi topp moom jéegi Diop jàpp ni kon loxoom laale na ci euh, nak lañu bëgg mooy ay preuve la ñu bëgg itam rek mooy kon mu wane ni koppar yooyu ñu koy toppee ndax moo ko jël waaw wala déet ndax loole am na walla amul ngir nag mbir mi. mu mën a leer ba tey ci wàllu yoon bu ñu jógee ci jéggi Diop dañuy dem ci Cheikh Yirim Seck taskatu xibaar bi ñu ni itam dañu ko rek woolu moom tey jii nag ci benn fan ci weeru octobre atum 2024 bu ñetti waxtu jotee kon lay wuy ji foofe ca brigade de la police nag bi yore wàllu cybercriminalité